bi loolu amee yéesu jóge fa dellu réewam ànd ak taalibe yi bésu noflaay bi nag mu jàngal leen ci seen jàngu ba mbooloom ñi ko dégg waaru naan lii fu mu ko jële te xam-xam bi mu yor lu mu doon bu muy def kemaan yi ndax kii du minise bi ndax du doomu maryaama te magu saak yuusufa yuda ak simon te ay rakkam yu jigéen ndax nekkuñu fii ak nun kon nag ñu daldi ko xeeb noonu yeesu ne leen des na fay daal yonent waaye du ci réewam ci mbokkam mbaa ci këram te yeesu mënu faa def ay kéemaan yu bari dul teg loxo yenn njarag wéral leen te mu waaru ndax seen ngëmadi bi loolu amee yéesu di wër dëkk ya di jàngale noonu mu woo ci moom fukki taalibe ya ak ñaar jox leen sañ-sañu dàq rab yi yónni leen ñu ànd ñaar ñaar mu digal leen nii bu ngeen di dem bu yóbbaale dara du mburu mbaa mbuus mbaa xaalis ci seeni maxtume waaye yem leen ci aw yet rekk sol leen ay dàll te yem ci benn turki mu ne leen kër gu ngeen dugg dal leen fa ba kere ngeen jóge dëkk ba koo xam ni gàntu na leen mbaamu mu tanqamlu leen génn leen fa yëlëb seen pëndu tànk ngir seede leen seen réer noonu taalibe yee dem di waare naan tuub leen seeni bàkkaar ñu dàq ay rab yu bari te diw boppi jarak yu bari wéral leen noonu erod buur bi dégg loolu ndaxte turu yéesu siiwoon na mu ne nag yaxya dekki na moo tax mu ànd ak kàttanu def ay kéemaan ñeneen ni kii iliyaas la ñi ci des ne yonent la bu mel ni yonent yu jëkk ya waaye bi ko erod déggee mu ne yaxya male ma daggalu boppam moom moo dekki fekk erod yónnee woon na jàpp yax ya yeew ko tëj ndaxte erod takkoon na erodiyaad jabaru filip magam te yaxya ne ko jaaduwul nga denc sa jabaru mag moo tax erodiyaad ëmbal ko mer ba bëggu ko rey waaye mënu koo def ndaxte erod dafa ragal yax ya ba sàmm bakkanam xam ni ku jubla te sell bu ko daan déglu it day jaaxle lool teewul mu bég ci déglu ko noonu bis bu yelli ñëw ba erod doon màggal bisu juddoom mu woo ca xew wa ay jaraafam ak kilifaay xare ba ak njiiti diiwaanu galile booba doomu erojaat dugg di fecc mu neex erod ak gan ñi ba buur bi ne janq bi laaj ma loo bëgg dinaa la ko jox mu booli ci ngi ne ko loo ma mën a laaj dinaa la ko jox ba ci genn wàllu réew mi sax noonu janq bi génn ne ndeyam lu may laaj mu tontu ko laajal boppu yax ya mu daldi gaawantoo dugg nag ci kanamu buur bi ne ko dama bëgg nga indil ma léegi boppu yax Yaxya ci biir ndab bi ko buur ba déggee mu am naqar wu waaye bëgg koo gàntu ndax ngiñ li ak gan yi mu daldi yónnee nag xarekat jox ko ndigal mu ndil ko boppu Yaxya waa ji dem dagg boppu Yaxya ca kaso ba indi bopp bi ci biir ndab jox ko janq bi mu daldi ko jox yaayam ba taalibe Yaxya déggee loolu ñu ñëw fab néew ba suul ko ci bàmmeel ginnaaw loolu ndaw yi dajaloo ci wetu yéesu nettali li ñu def ak li ñu jàngale lépp ci kaw loolu yeesu ne leen nanu beddeeku dem ci barab bu wéet ngeen noppalu fa tuuti waxoon na loolu ndaxte amoon na ñu bari ñu doon dem ak a dikk ba amuñu sax jot ngir lekk noonu ñu dugg ci gaal dem ci barab bu wéet bi ñuy dem nag am ñu leen gis xàmme leen ñu daldi jóge ci dëkk yépp daw jiitu leen fa bi Yeesu génnee gaal gi mu gis mbooloo mu rëy yërëm leen ndaxte dañoo mel ni xar yu amul sàmm kon mu daldi leen jàngal lu bari ca ngoon sa taalibe yi ñëw ci moom ne ko fii àllub neen la te léegi mu guddi yiwil mbooloo mi nag ñu dugg ci àll bi ak dëkk yi nu wër jënd lu ñu lekk waaye Yeesu tontu leen ne yéen jox leen leen lu ñu lekk ñu ne ko xanaa nu jënd lu tollook peyu juróom ñetti weer ci mburu jox leen ñu lekk yéesu laaj leen ñaata mburu ngeen am dem leen seeti ñu dem seeti ne ko juróomi mburu ak ñaari jën noonu Yeesu sant mbooloo mi ñu def ay géew toog ci ñax mu naat mi ñu toog nag ay géew yu juróom fukk ak téeméer bi loolu amee yéesu jël juróomi mburu yi ak ñaari jën yi xool ci kaw sant yàlla ba noppi mu damm mburu yi jox ko taalibe yi ngir ñu seddale ko mbooloo mi ñaari jën yi it mu seddale ko ñépp noonu ñépp lekk ba suur te ñu dajale la desoon ca damiti mburu ya ak jën ya ñu nekk fukki pañe ak ñaar yu fees ñu lekkoon nag matoon na li mu juróomi junniy góor ci kaw loolu Yeesu sant ay taalibeem ñu dugg ci gaal gi jàll ba Batsayda bi mu yiwi mbooloo mi bi mu tàggatoo ak mbooloo mi mu yéeg ci tund wa ñaan fa yàlla noonu guddi jot fekk gaal gi nekk ci diggu dex gi te yeesu rekk moo nekk ca tefes ga booba mu gis taalibe yi sonn lool ci joow gaal gi ndax li leen ngelaw li soflu ca njël nag mu jëm ci ñoom di dox ci kaw dex gi ba xaw leen a raw bi ñu ko gisee nag muy dox ci kaw dex gi ñu foog ni njuuma la daldi yuuxu ndaxte ñépp gis ko te jummi ci waaye mu wax ak ñoom ci saa si ne leen takk leen seen fit man la bu leen tiit noonu mu fekk si leen ci gaal gi ngelaw daldi ne tekk njàqare taalibe ya nag weesu dayoo ndaxte seen xol dafa fat ba réere mbir kéemaan gi yeesu defoon ci mburu yi bi nga xamee ni jàll nañu ba àgg diiwaanu senesaret ñu teer fa génn ca gaal ga ci saa si nit ñi xàmmee ko ñu daldi daw ci diiwaan ba bépp te fépp fu ñu ko dégg ñu di ko indil ñu wopp tëdd ci seeni lal te fu mu mën a aw ci dëkk yu mag mbaa yu ndaw walla ci àll bi ñu indil ko jarag yi ci pénc yi ñaan ko mu may leen ñu laal cati mbubbam rekk te képp ku ko laal daldi wér